عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم jëlee nañ ci Ibnu Abbas radiyallahu anhuma mu ne باب الحجامة والقيء للصائم حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم jëlee nañ ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nampatal na te fekk boobu mu ngi armal aj nampatal na itam te fekk boobu mu ngi oor maanaam ñaar yooyu yëpp nampatal mënu ko yàq ba tey solo nañ jëlee ci abbas te yàq koor ndax waxoon nañ démb ne koor li ko yàq mooy lu ñuy dugal waaye lu ñuy génne mënu ko yàq te nàmpatalu génne deret rek la sallallahu alayhi wa sallam Malben Radio حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البنانية قال سئل النبي سئل مالك سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابته حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ba tey solo nañ laaj anas ibnu malik radiallahu anhu anas nag lu tax ñu koy laaj mooy moom mooy bëkk néeg yonent bi nekkoon ci néegam nga xam ne liggéeyal na ko fukki at ci néegam wala juróom-ñeenti at ci beneen riwaaye kon moom war naa xam liñ nekkoon foofu ci néeg yonent bi ak li yonent bi nekkewoon ci néegam. Malben Radio. laaj nañ ko nekkoon ko ndax yéen da ngeen a siboon nampatalu ci wax jooju yëpp ci yonent bi lay dellu ndax ñoom anas moom amul lu muy war a sib ak lu muy bëgg da ngeen siboon nampatalu ci ku oor anas na déedéet lu may bu ñu ragalee ci moom ne def néewloo doole. mais loolu ci jamono yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam anas loolu mu wax ci yonent ba la ko déggee wala ci moom la ko gisee ndax ci néegam la nekkoon sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi fi safar fi safari wal iftaar xaddatana ali bnu abdillah xaddatana sufyaanu an abi isxaaq asheybaaniyi sami'a ibn abi awfa radiyallahu anhu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa qaala li rajulin inzil fajdah li qaala ya rasulallahi ash-shamsa qaala inzil fajdah li qaala ya rasulallahi ash-shamsa فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر bunti nit ku oor te fekk ci tukki la nekk ak dog ba tey te fekk yaa ngi ci tukki ma solo nañ jëlee ci abi Isxaaq Sheybaani mu ne déggee na ci ibnu abi awfa radiallahu anhu mu ne nekkoon nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki mu ne ca ngoon yonent bi ne nit wàccal nga njaral ma kooku ne yonent bi jant baa ngi nii dama gut maanaam soo gut yonent bi ko wàccal nga njaral ma mu ne ko yenoon yonent yàlla jant baa ngi nii ba tey dama gut yonent bi ne ko wàccal nga njaral ma mu ne mu door a wàcc yooni ñetteel wi njaral ko yonent bi naan ba pare sànni loxoom ci wàllu penku bi ne waxtu wu ngeen gisee guddi gi yëkkati mu jublu si jógee ci boor bi ku ooroon rek mën naa doog maanaam su boobaa rek jant sonn sallallahu alayhi wa sallam حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم مالبن راديو عائشة أن حمزة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر solo nañ jëlee ci Aïcha radiyallahu anha mu ne Hamza ibnu Amr al-Aslami wax na yonent bi ne ko yow yonent yàlla man de dama bari lu may tegale koor ba tey aysatu solo moom soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële ci xamsata moomu xamsata laaj yonent bi ne ko ndax bu ma nekkee ci tukki ma oor wala nu may def mu ne te ku bari woon lu muy oor la mu ne yonent bi ne ko bu la neexee ooral bu la neexee itam dogal maanaam bu nekk ci tukki tànnaloo nañ ko su fekkee kàttanam may na ko mu mën a oor te du ko néewloo doole di ko sonal mën na woor su fekkee nag tukki ma dana ko sonal ba koor gi nekk beneen coono ci moom su boobaa mën naa dog waxtu wu ñibbisee bu koor gi passé mu fay fan yooyu sallallahu alayhi ayaaman min ramadaana dumma saafara حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس وقال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد bunti nit ku oor ay fan ci weeru koor tukki gaar ko mu dem tukki ci biir weeru koor bi ndax dafay dog wal dafay oor ca biir tukki ma solo nañ jëlee ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam génn na jëm Makka ci weeru koor mu ne mu oor ba jot place bu ñuy wax këddit ñoom nag jant bi tàng ak ñoom yonent bi daal di dog ba mu dogee ñu àndoon ak moom ñëpp daal di dog abu abdullahi nag mooy nekk mooy wax ne këdit place la boo xam ne ndoxo fa nekk mu ngi nekk diggante asfaan ak këdit waaye yonent bi or na ba jot bërëb boobu daal di dog nit ñi dog ànd ak moom kon tukki bu la neexee nga or boo ko mënee bu la neexee def nga dog mu gannaaw lu nga fekk sallallahu alayhi wa sallam xaddatanaa abdullah ibnu yusufa xaddatanaa yaxya ibnu xamzata an abdirahman ibni yazid ibni jabirin anna ismail ibna ubaydillahi xaddatahu an ummi darda an abi dardaai radiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ma tey solo nañ xadis bi jëlee ko ci ummi darda mu jëlee ci jëkkëram abu darda radiallahu taala anhu abu darda wax ne génn nañ ànd ak yonent bi sallallahu ci leeni tukki mu na ci bis boo xam ne bis bu tàng la mu ne tàng na ba nit dana enu loxoom yi sax dana enu loxoom yi ci kaw boppam ndax jaaxle du xam nu muy def ci tàngoor bi mu ne waaye kenn ci ñun orutoon lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ibnu rawaxata yi ci des ñëpp tàngoor yi terewoon na leen a or ba dañoo dogoon kon yonent bi or na moog ibnu rawaxata ñi mënta or dog nañ te waxul leen dara kon ñaar yëpp mën na nekk sallallahu alayhi wa sallam baabu qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam li man dullila alayhi wa ishtadda alxar laysa min albirri alsawmu fi safar حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر bunti waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kuñ defaloon ay parasol nii pour tàngoor yi tàngoor yi metti ci moom te fekk mu ngi or yonent bi daal di wax ne bokkut ci jaamu yàlla walla bokkut ci baax walla mbaax or te fekk yaa ci tukki loolu ci maanaay waa jooju la ko yonantu bi wax ndax gis na coono bi ko koor gi teg na loolu nag bokk ci mbaax la ko waroon boobu mooy mu dog ko mënu ko solo nañ jëlee ci jaabir ibn abdillah radiallahu an mu ne yonent bi sallallahu alayhi nekkoon na ci tukki mu ne mu gis buuxante bu rëy rëy rëy mu ne ci ñu wër benn góor goo xam ne ñu ngi ko defal ay parasol ci kawam pour jant bi ak naaj wi yonent bi ne lii mooy lan ñu ne ko dafa or tàngoor yi moo ko sonal nii yonent bi ne bokkut ci def lu baax nag or te fekk yaa ci tukki xanaa daal boo nekkee ci tukki yàlla comme yorombal na la pour nga dog comme ni mu la yolombalee ci julli ñeenti rakk yi nga def ko ñaari rakk koor itam yolombal na la pour nga dog su gannaaw loolu nga fay ko sallallahu alayhi wa sallam baabu lam yaib asxaabu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam baaduhum baadan bis sawmi wal iftaar xaddathana abdullah ibnu maslamata عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم bunti kenn ay balut sa morom ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ci tukki lañ nekk mu ne ñi or ay baluñ ñi dog ñi dog itam ay baluñ ñi or maanaam ñi mën a or or nañ ñi mënta or dog nañ te kenn waxut sa morom dara kenn ay bonut sa morom kon ñaar yëpp mën na nekk comme ni ñu ko waxee woon sànq mu ne jëlee nañ ci anas ibnu malikin mu ne nekkoon nañ ci tukki ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñi or ñi dog ñi or ay baluñ ñi dog ñi dog itam ay baluñ ñi or sallallahu alayhi wa sallam Malben Radio baabu ma afara fi safari li yaraahu nnaas xaddatanaa Muusaa bnu Ismaaciila xaddatanaa Abuu Awaanata an Mansuurin an Mujaahidin an Taawusin an Ibni Abbaasin radiyallaahu anhumaa qaala xaraja rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam minal madiinati ilaa Makkata fa saama xattaa balaga Cusaana summa dacaa bimaa'in fa rafacahu ilaa yadihi li yaraahu nnaasu fa aftara xata qadima makkata wa dalika fi ramadan fa kaana ibnu abbasin yaqul qad saama rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wa aftara fa man shaa saama wa man shaa aftara mu ne bunti ku dog ci tukki wane ko ba nit ñi gis ko xam ne nit mën na tukki dog mu ne solo lañ jëlee ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma Ibn Abbas wax ne yonent bi génn na jóge Madina jëm Makka ci weeru koor mu ne mu oor ba egsi place bu ñuy wax Asfan mu yónnee ne nañ koy indil ndox ñu indil ko ndox mu yëkkati ko ci ñaari loxo yi ba ñépp gis ko mu naan moom yonent bi sallallahu alayhi ngir nit ñi gis ko mu naan ñu xam ne dog na mu ne mu dogee fa ba egg màkk xanaa ba mu eggee màkk xañ na fa la continuer koor gi walla continuer na di dog ndax lépp tukki bi rek la mu ne te loolu ci weeru koor la woon ibnu abbas nag ne yonent bi oor na ci tukki dog na ci tukki kon képp kum neex boo nekkee ci tukki mën ngaa oor kum neex itam boo nekkee ci tukki mën ngaa dog sallallahu alayhi wa الباب على الذين يطيقونه فدية وقال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wa qaala ibnu numairin xadatana al amashu xadatana amru bnu murrata xadatana bnu abi leyla xadatana asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nazala ramadaanu fa shuqa alayhim fa kaana man atcama kulla yawmin miskiinan taraka sawma mimman yutiiquhu wa ruxisa lahum fi dalika fa nasaxatha wa an tasuumuu xayrun lakum umiru bi sawmi xaddatanaa ayyaashun xaddatanaa abdul ala xaddatanaa ubaydullahi an naaficin an ibni umara radiyallahu anhuma qara'a fidyatun taamu masaakina qaala hiya mansuuxatun bunti li yàlla wax ne ñi mënta oor ñi ko attanut nañ jotu mu ne folli nañ ko dañ koo folli bu njëkk soo mënul rek da ngay leele après dal jotu ci koor googu bañ oor yàlla wàcce nag ne weeru koor wi nga xam ne ci lañ wàcce alquran muy njub ñeel nit ñi di biralal nit ñi yooni njub di fasale itam diggante dëgg ak nar mu ne képp koo xam ne gis na weer wi na ko or gis ko nag mooy nga gis ko wala ñu gisal la ko ñaar ñu màndu wala mbooloo moo xam ne duñ dajee ci fen mu ne képp koo xam ne da nga feebar wala nga nekk ci tukki na nga compte fan yi nga xam ne mënoo ko nga dog ko boo wéree wala boo dellusee ci sa tukki nga fay ko mu ne yàlla yombal la namu ci yéen waaye namut ci yéen jafel Malben Radio ngeen matal lim bi te màggal yàlla ci li nga xam ne mu leen jubal boole yoon ngeen ndax yéen ngeen man koo sant mu firi nag wax jooju mu ne solo na jële ci ibnu abi layla mu ne saxaaba yonent bi ñenn ci ñoom nettali nañ ñu ne weeru koor bi mu wàccee ñu farataal ko ci jullit ñi mu ne dafa metti yoon ci ñoom lool mu ne jamono boobu ku mënul rek bët bu set da ngay jox benn miskin te bàyyi koor gi fekkee mënoo ko mu ne ñu yombalal leen ko noonu ne ku mënul rek man nga leel benn miskin te bañ a waaye nag ba yàlla wàccee wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun ngeen woor moo gën ci yéen mu ne loolu moo folli wax ju njëkk ji nekk ku mënut mën ngaa jox miskin mu ne ñu digal leen ne or leen ko ñuy or kenn nag sañatata dog gannaaw loolu lu may ci tukki wala ci wéradi te loolu itam da koy fay bu koor gi wéyee sallallahu wa sallam jëleen nañ ci ibnu umar radiallahu anhuma mu ne fii de taam mu ne ko lolu fàlli dañ ko maanaam joxe leele ñam te bañ a or lakum mu ko fàlli sallallahu alayhi wa sallam wa qaala ibnu abbasin laa ba'sa an yufarraqa لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم bunti ku amee bor yi war a koor kañ nga koy fay Ibn Abbas na na dara nekku ci pour mu tàggale ko maanaam mu nekk ay fan yu tàggaloo or ci weer wi dara or ci weer wala dara ndax mu ne yàlla def ne li mépp ay fan rek ci yeneen yi fan maanaam noo ko mën a fayee rek noonu nga koy fayee chartuñ ci pour nga tofsale ko foo mu ne ñett ci weer wi ñaar ca weer wala noonu ba mat nga oore ko noonu mu ne su fekkee ne da sàggane fay bor boobu nag ba weer koor ñëwaat fekk la fa mu ne da leen di or ñoom ñaar mu ne gisuñ ci moom itam gisuñ fa leele ñam solo lañ jëlee ci Abu Hurayra xadis boo xam ne mursal la maanaam luñ boyal la sena dem dëgërut noonu ak Ibnu Abbas ñoom ñaar ñu wax ne kooku mën naa le te yàlla tuddut baatab joxe ñam ci laay ji dafa wax ne fa iddatun min ayaamin uxar maanaam daf koy kontal yeneen fay yeneen fan fayee ko waaye du loo xam ne dafay leele ay ñam pour mu wàcc ko ba tey dégg nañ ci aïchatu radiallahu anha mu ne daan na am bori koor moom Aïcha mu ne du ko mën a fay ba caabaan ñëw maanaam ba weeru koor di waaj ñëwaat mu ne yaxyaa nag ne xaj na daf daan soxloo yonent bi wala yonent bi di ko soxla daf daan soxloo liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yonent bi di ko soxla ci leneen ba du am joti fay bor boobu ba caabaan sallallahu alayhi wa sallam. Malben Radio. ba baabul haa'idu tatruku sawma wa salaata wa qaala abu zinaadi inna sunana wa wujuuha alxaqi taati kathiiran ala xilaafi ra'yi كما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها bunti jigéen su gisee baaxi jigéen xam nga dafay bàyyi julli dafay bàyyi koor bàyyi julli te koor gi dana ko fay waaye du fay julli yi xam nga xel nanguwul loolu ndax julli moo gën a foor koor ñu fayloo ko koor gi te fayloo ñu ko julli gi mu ne looloo tax sunna yi ak anami xiw yi anami dëgg yi mu ne dafay uute ak xalaati nit li gën a bari ndax nit li muy xalaat mooy li gën a foor moom lañu war a jiital wala moom lañu ñu war a gën a fay waaye nag diine ji tëddeewut noonu te du ci xel te mbir yi ci ëpp ay tawqifiyaat la maanaam niñ ko tëralee rek mën nga koy defee mu door a wér moo tax ñuy wax ne ragal yàlla mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi ci li feeñ ak li nëbbu ci ne ko gërëm loo moom yàlla du ci ni la gërëmloo yow jaam bi ndax mbir yooyu yëpp tawqifiya la niñ ko tëralee noonu nga koy defee boo uuteeg niñ ko tëralee sag jaamu matut mu ngi mel ni nga xëy ne da nga am ay soxla yàkkamti da ngay julli tusubaar ci suba teel mënta nekk suba waay itam def nga lu la neex waaye julliwoo tusubaar li wér mooy ni nga xam ne noonu la koy yonent bi tëralee nga defee ko noonu gis nga li ñuy wax ne jigéen dañoo manqué yonent bi ne ndax duur ne su ooree su su amee baaxi jigéen dafay bàyyi koor bàyyi julli ñu ne waaw mu ne loolu mooy manqué diine gi nekk ci moom moo tax li ñuy wax naan naqsatul aqli wa diin ñàkk julli ñàkk oor googu leen di daal ci weer wu nekk moo indi manqué manqué boobu ci ñoom sallallahu alayhi wa sallam